L'eau multimédia moi Qur'an. L'eau multimédia est spécialisée dans la vente et la prestation de services en proposant une large gamme de matériels informatiques, bureautiques, électroniques, réseaux, divers accessoires et services liés aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Avec 11 ans d'expérience, la société L'eau Multimédia est composée d'une vingtaine d'employés et participe au développement du pays et à la création d'emplois. L'eau Multimédia. Nous sommes au 27 avenue Émile Badian, angle Paul Hall Dakar, Sandaga, Lalouourous. Téléphone 823 81 87 ou 77 998 04 04. Service commercial 77 306 44 83 ou 76 637 45 45. بسم الله الرحمن الرحيم مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندلس واتسون جوتاي السلف مع القرآن منك جوتاي دارجة ñu koy amee fii ci la maison du Coran muy kër goo xam ne képp kuy safoo la karim am nga ci cër ndax la karim téere bi lanu samp ci biir kër gi ku ci nekk daal di ciy jël sa wàll ñu ciy ànd ak sunu sponsor loo multimédia ñoom ñu ñuy gunge bu baax ci jotaayu alquran di ñu gunge bu baax a baax ci kër gi ñuy jaay lépp lu jëm ci eh, inf matière informatique képp ku dem ci ñoom wala woote ci numéro yi nga xamante ne moom mooy daw ci suuf incha allahu taala di nga am jumtukaay bu baax ñu wéy rek. ak sunu jotay bi di asalafu ma alquran dañuy sof rek fa nu tollon tay nak ñu wara jël tomb bu bes nga xamantene ne daanaka képp ku sopp alquran wala bëgg xam dara ci alquran téré bi yittel la dina la amal solo moy kitaabatul qur'an al karim fi ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam jëmmi bind alquran al karim ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téré bi nga xamne mom lañu jot tay ji mu nek kaamilu alquran bo xamantene man nga ko ngab ba nga mën koo def ci sa téléphone wala sa machine ordinateur su waxyu bi daan wàcc muy révélation bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su jibril daan ñëw nan la ko saxaaba yi daan bindee ci yan jumtukaay lañ ko daan bind ak ñan ñoo ko doon bind ak yan ñooy tegtal yi nga xamante ne moom mooy wane ne luy saxal ne alquran daan nañ ko bind ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci yooyee la ñuy xuus ba ca jiitu mooy al adillatu ala kitabati alqurani alkarimi fi ahdi nabii sallallahu alayhi wa sallam lay tegtale te lay saxal ne alquran ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan nañ ko bind kon dañ koy tab ci alquranul karim waaye daal di koy leeral ci li nga xam ne mooy xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ca jiitu mooy itlaaqu lafdal kitaabi fi alquranil karim mooy jëmmi wala baati téere baatu téere alquran daf ko tudd te téere suñ ko waxee rek mooy jëmmi téere bu tege kon loolee dafay wane ne alquran daan nañ ko bind ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy daalika alkitaabu laa rayba fiihi yàlla nee na ca suratul baqara moo ne daalikal kitaabu téere boobee de laa rayba fiihi amut lenn loo xam ne dañ ko cay sikki sàkk ci ñàkk a wóor wala déet lépp wóor lépp mat lu mu wax rek moom mooy dëgg kon daalikal kitaabu lu tax yàlla mën koo joxoñ ne daalikal kitaabu bii lee téere de kon day wane ne alquran lu ci wàccaan ci jamono saxaaba yi ñoom dañ ko daan dañ ko daan bind ñaareel ba mooy que ne ci biir alquran da ngay fekk ne alkitaaba jëmmi lu nu bind bokk na ci melokaan yi nga xamante ne alquran daf ko saxalal boppam yàlla buur bi subhaanahu wa taala nee ne rasulun min allahi yatlu suxufan mutahara nee ne rasulun min allah ab yonente boo xam ne yàlla moom moo ko yónni muy jàng ci kanamu saxaaba yi suxufan ay téere li tax mu ne suxufan a suxuf jamu saxiifa maanaam mu lu tax mu ne ay téere parce que alquran jamono joojee bindaguñu ko ci benn téere lépp lu wàccoon maanaam lu wàccoon ci ay laaya rek yonent bi daf koy dëgtal saxaaba yi ñu daal di koy bind ba pare mu ne leen laay yi de duggal leen ko ca saar wa nga xamante ne ñu ngi koy wax ñu ngi fay wax nangam ak nangam maanaam laay yi de duggal leen ko ca saar saar sangam fiiha kutubun qayyima maanaam téere yooyee nga xam ne moom la yonente boobee di jàng de fiiha nekk na ca kutubun qayyima ay axbaarun saadiqa wa awamira aadila ay xabaar yoo xamante ne xabaar yu dëggu la lépp lu alquran wax ne moom mooy ami wala moo fi amoon na leen leer ne dëgg la waaye ak ay digle yoo xamante ne yu maandu la kon ñaari yëpp day wane ne alquran daan nañ ko bind ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel ba moom mooy larot ci ay xadiis yoo xamante ne dafay tegtale ne alquran daan nañ ko bind ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa wa muslim عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو bokk na ca lay tegtale ne alquran dañ ko daan bind ci jamono yonent bi mooy xadis boobee nga xam ne buxaari yi ak muslim dañ ko nettali ñu jëlee ko ci ibnu omar yal na yàlla gërëm ko mook bàyyam di omar ibn al xataab mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen daan tere ci seen jamono ñuy ŋàbb ab téereb alquranul karim di tukki ak moom jëm ci dëkk boo xam ne noonu lislaam yi noonu alquran ñoom ñoo fa nekk ndax yonent bi daanu leen ci wóolu mën nga dem ba foofu ñu nangu téere boobee diko ko toroxal sa kanam wala di ca def ay sobe ci sa kanam motax tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan len ko tere bokku na ci baat ya nga xamanteni muslim moom moo ko ba legi ngir dëggal bobé hadith moy ne anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal laa tusaafiru bil qur'ani fa inni la amanu an yanalahu al adu la tax yonent bi illa bi tax yonent bi daan len tere ñu ngab kamilu al alquranul karim dem ak mom ci dekk yéefar moy mooy yonent bi lam ci neene woluuma ci ca man nga dem ñu nangu kamil goge ci yow waye di ci diko lak ولا جيلكو دي تي ديف اي ay sobe toll nañ ci jamono joo xamante ne liberté am na waaye jamono jii ñu toll gisaat nañu ay mbir yoo xam ne xaw na nga gis ñu jël ab kamilu alquran karim waaye diko lak wala diko ko toroxal loolee dafay tekki muy ci ab keur wala ab dëkk ak fu manti nek fo xamne leer na la ne kamil gi de soko yobale do ko mën sam ba len lo xamne mom moy ñaawal alquranul karim wala luy saboté du ci ag bu boobaa man nga ko yobale waaye so ci amut lu wor rek boobaa nga bàyyi ko fi moom mooy nekk li nga xam ne moom mooy gën niki noonu Malik ak Daarimi ak Abu Ubayda ñoom dañuy nettali ci ne téere boobee nga xamante ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam lettre boobee nga xam ne moom la yónnee woon Amr ibn Hazm mu ne ko allaa yamassa al qur'ana illa tahir bokk na ca dénkaane ya ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mooy que ne allaa yamassa al qur'ana alquran jii de bu ko kenn laal illa tahir lu dul ku laab parce que alquran la yamsuhu illa almutaharun ci yàlla daf koo laabal ci asamaan laabal ko ci kaw suuf kon alquran ku laabut rek mbooboo nga bàyyi moom moo gën ñeenteel ba ci yi nga xamante ne dafay tegtale ne alquran dan nan ko bind ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy idnuhu bi kitabati alqurani alkarim yonente bi joxe bi mu daan joxe ndigal pour ñu bind alquran alkarim ci jamonoom im euh, muslim dafay nettali rahimahu rahman muy nettali ci abi said alxuduri ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa taktubu anni wa falyamhuhu Saïd al-Khudri dafay nettali muy abi Saïd al-Khudri comme ni nga xam ne noonu la ko muslim nettalee nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan wax saxaaba yi ne leen laa taktubu anni maanaam lépp loo xamante ne man maa koy wax bu leen ko bind maanaam yonent bi ci jamonoom amul benn xadis boo xam ne daan nañ ko bind maanaam bind ko nii ba fësal ko déet waaw ku bind itam da ngay bind denc sa kër loo xamante ne kenn du ko yëg te bu mu génni moo tax mu daan leen wax ne bu ko kenn bind ci li may wax man kataba anni gayra al-Qur'an ku bind jëlee ci man loo xam ne du alquran fal yamxuhu na ko fomp ci saasi moo tax saxaaba yi bañ jotee ndigal gi rek lépp luñ bindoon dañ daan dem daal di koy fomp ci saasi lépp loo xam ne wàcc na ci yonte bi salallahu alayhi wa muy alquran ñoom dañ koy bind waaye lu alquran ñoom duñ ko duñ ko bind kon loolu itam dafay tegtale ne yonent bi da doon joxe ndigal ne nanu bind alquranul karim kese ci jamanom juromel ba ci yi nga xamante ne dafay tegtale ne alquranul karim dañ ko bindon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moy yonente bi dafa amone ño xamne ño ko don bindal wahyi kana li nabi sallallahu alayhi wa sallam kutabun yaktubuna lahu alwahyi yonente bi dafa amone ay bind kat yo xamantene ñom ñoo koy bindal wahyu bi saa wacce ci asaman wa kana yamuruhum bi kitabatihi fawra nuzulihi sayu jibril ñewé rek lu andi ci ay laaye wala saar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woo leen ne leen kaay leen loolu bokk na ci la koy tegtale mooy euh, xadis boobu nga xamante ni imaam al buxaari daf koy nettali mu jëlee ko ci anil bara ibn azib mu jëlee ko ci bara ibn azib bara ibn azib moom mooy nettali ne ca laaye googee nekk ca soorata nisa ba yàlla wàccee ne laa yastawi alqaaiduna min almuminin ba laaye bi wàccee yonent sallallahu alayhi wa sallam bim ko jange mu dadi wo ki nga xamantene moy zaid ibn Thabit ne ko kay bindiko bim ko binde fek Abdullah ibn Ummi Maktum mom mu ngi ci ginaaw yonent te mom silma khala parce que yàlla ngi wax nan ñi nga xamne ñom ñoy tok toog xexi mënu no yem ak ñi nga xamne ñuy ngab seen jaasi ànd ak yonent sallallahu alayhi wa sallam dem xexi ñom duñu yem mukk waye bi lolu amé ibn ummi maktum dadi ñëw ci yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yonent yàlla Muhammad man de silma khala nan lay démé xexi ci la Jibril ñewat Euh, naasix ak mansuux daal di cee am jibril daal di ñëwaat wàcceewaat laaye gi ne laa yastawi alqaaciduuna min almuminina gayru uli darar lu dul ñi nga xamante ne dañoo am ab lor manam silmaha wala nek ko xamantene dafa lago yu mel nonu wal mujahiduna fi sabilillah kon li da fay tektale ne li tax yontu bi daal wo zaid ibn Thabit mu daal di ñëw bind wahyu bi ci sasi kon da fay tektale yontu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amon ay ñukoy bindal te ibnu abi ibnu abi daud da fay netali mu ne zaid ibn Thabit dafa wax ben bés ne kuntu jara rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa kan idha nazala alwaxy arsala ilayya fa katabtu alwaxye Zayd ibn Thabit nee ne man ma dëkkandoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa woon maanaam dama nekkoon dëkkandoo yonente bi yaa lahu min sharaf loolu teraanga te dange gu rëy la yal nañu yàlla de def ñun ñëpp ñu nekk ay dëkkandoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci aljanna nee ne su wax yu wàccaan rek yonte yàlla muhammad dafay yónnee ci man ma daal di ñëw daal di koy bind euh, niki noonu euh, Bukhari dafay nettali ne Abu Bakrin Sadiq ba muy sant Zayd pour mu daal dajale li nga xamantene mom moy kamil alquran alkarim daf ne ko yow kunta taktubu li nabii sallallahu alayhi wa sallam yow de ya don bindal yonti bi sallallahu alayhi wa sallam jurom benneel ba ci yi nga xam da fay tektale ne alquran lu nu bindoon la ci jamano yonti bi sallallahu alayhi wa sallam moy tawjihu nabiyi lil kutab bi an yad'u l aaya aw l ayati allati tanzil fi mawaadiha moy yonti bi nim dan orienter sahaba yi lépp lo xamne wàcc na ci laaya wala ak ilaaya nañ koy tegee ci seeni saar jombul am na ñoo ne lii jaaxaloon na leen mathalan suratul baqara wàcce ndawut benn yoon ali imran saar yu guddi wàcce ndawut kon nan la ñuy def ba daal di ko kii kon laaye yu wàcc rek yonent bi moo daan wax saxaaba yi ne laaye yi de duggal leen ko ca suratul baqara wala laaye yi duggal leen ko ca suratul tawba wala laaye yi duggal leen ko ca yusuf wala yunus wa ma ila dalik loolee ki nga xam ne mooy ibnu abbas nettali na ko jëlee ko ci uthman ibn affan radiallahu anhu mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na mimma yaati alayhi zaman maanaam ci jamono ji nga xam ne ca lanu nekk yanzilu alayhi su min a أي, أي, loo xam ne fil adad maanaam li wàcc ci saar yi nga xamante ne dañoo gudd lool mu ne fa kaana ida nazala alayhi shay'un yad'u ba yad'u baada man yaktubu indahu fa su ay laaya wàccoon ci moom rek dafay woo kenn ci ñi nga xam ne doon bindal muneko ne ko da'u haadihi fi suurati lati yudkaru fiha kada wa kada laaya yi wàcc de duggal leen ko ca saar wa nga xamante ne mu ngi wax ci sangam ak sangam wa yanzilu alayhi al aaya fa yaqul da'u haadihi fi suurati lati yudkaru fiha kada wa kada laaye su wàccaatee mu ne leen yi duggal leen ko ci saar sangam wa yanzilu alayhi al ayat fa yaqul da'u hadihi al ayat fi surati lati yudkaru fiha kada wa kada laaye yi duggal leen ko ca saar ya nga xamante ni ñu ngi cee wax sangam ak sangam uh, juróom-ñaareel bi ci yi nga xamante ne moom la ñuy tegtaloo ne alquran daan nañ ko bind ci yonent bi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne foofu lañ lañ koy tëjee mooy murajaatuhu lil kutabi baada kitabatihim lima yanzil mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon bindal waxyu bi saa yu waxyu bi wàccee ñoom suñu bindee ba pare yonent bi daf leen di woo ne kaay li nga bind jàngal ma déglu ko jàngal ma dégg ma xool ndax amul benn benn njuumte ni ki noone Zayd ibn Thabit moom moo ñu ko nettali mu ne eh, kuntu aktubul wahya man dama daan bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yi muy alquran gii di wàcc inda rasulillah wa huwa yumli ali maanaam saa yu jibril ñëwee nett eh, jàng alaay mu dégg ko ba pare moom daf ma koy dicté may bind fa ida faragtu su ma bindee ba pare qaala li iqra daf may naan jàngal fa aqra'ahu ma daal di jàngaat la ma bind ba pare fa in kaana fihi saqta aqaama su fekkee ne am na lenn lu ma ca fàtte wala lenn lu ma ca yokk wala benn njuumte mu daal di koy joyante ay mu daal di koy jubanti yal na yàlla feyel ñu yonente bi waaye yàlla feyel ñu saxaaba yi

électronique, réseau, divers accessoires et services liés aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Avec 11 ans d'expérience, la société L'eau Multimédia est composée d'une vingtaine d'employés et participe au développement du pays et à la création d'emplois. L'eau Multimédia. Nous sommes au 27 avenue Émile Badian, angle Paul Hall Dakar, Sandaga, Lalouourous. Téléphone